disposition yooyu nag euh, dafa nekk ci benn loi bu 2022 euh, am benn décret bu ñëw euh, préciser ko décret bi wax ne mission yi dañ ko renforcé ba pare yaatal ko Thiès looloo tax CETUD boo leen xoolee dafa nekkoon conseil exécutif des transports urbains de Dakar ñu tuddee ko depuis boobu conseil exécutif des transport urbains durables maanaam ci matuwaay yi ñu koy jox ak jumtukaay yi ak li tax euh, mu war a euh, transformer mobilité bi euh, Dakar Thiès dafay bokk ci liggéey boobu boo leen xoolee bu baax Thiès Mbour ak Dakar dafa am lu ci xew ci diggante bi am na ay aéroport am na ay ay ville yu ñu tuddee ville nouvelle am na Lac Rose am na Daga Xolpa ce qu'on appelle des des des